ko exactement bésu tabaski bésu bu am solo la waaye débat bi rek dafa viré wu vers li nga xam ne que moo di coow li wàllu fisc bi et tant d'autres et alors le discours d'Ousmane Sonko au Grand Théâtre ba jàng nga seef concrètement que ni balaw nañ leen baal leen baal leen bii pas doo war a mën a fay ni alors que ni patron de presse yi li ñuy naan ñu ngi koy yóbbu ci fisc ba di ko gëmloo employé yi eggu si exactement ñaari coow moo am est-ce que au presse la Ousmane Sonko. wala hmm. coow politique la. moo tax ma bëgg nga préciser ma question pour me comprendre lan moo xew tabaski nga wax ma exactement la question exacte que je puisse te répondre non parce que euh, pour avoir pour donner la. pour mais mais dans la forme mun na jàpp. non Sonko ak ak les patrons de presse non mais sur le fond mun na jàpp ah, c'est purement de la politique. mais sur le fond mun na jàpp c'est purement de la politique mais sur la forme li

alors mais euh, mbiru fisc bi nga xam ni fiscalité eh, bi ah. mané Donc ko politiser manam légui dama né réew dafa am nu muy dafa am muy fam comme réew dafa am nu muy doxé état ci lay jël ak ay taxes. Hmm. yo jëndé am nga fay taxes essence bi ça coûte 990 francs Ça, ça jëndé carburant da ngay fay état yenen entreprise xana ñom ñoom du ñay une entreprise je te pose la question entreprise BTP de Baratal du entreprise Il y EDK du entreprise voilà dañuy fay impôt pourquoi légui une catégorie rek y fay impôt quoi c'est vrai qu'il y a parce que l'État peut na nan lay euh, de manière discrétionnaire mais pour man li sama bi Sénégal di Kéba a bor fay ku que bor ko fay méthode l'État di parce que man dama wax qui inspecteur impôt domaine président inspecteur impôt premier ministre ba par contre l'État n'a pas besoin d'installer des tensions avec la presse la presse doit être un partenaire de l'État ah, il faudra que nous pacifions les rapports yi mu a des rapports de collaboration que chacun joue aussi son rôle. Mm. mais aussi su ni euh, y a plus de politique. Euh, des intérêts politiques croisés ça va se répercuter sur le champ politique. mais en quoi cela a affaire quoi le politique exactement. mais tu, connais la question Ce fait ni que on a une presse qui est orientée politique on a eu euh, une presse qui a été orientée ñi dafa am ñu ñu far dire. ci loolu moo fi xewoon da ngay nga gis ay 46 une il y a des journalistes qui ont dañ leen commandité donc mu nekk ay est-ce que euh, presse boobu indépendance presse est-ce que am na sax loolu yëpp tey mën nga nekk homme politique bu la nee nga ubbi sa télé sa presse après tu peux donner l'orientation que tu veux loolu yëpp rek lu ñu war a la du donc pour moi, le vrai débat c'est quoi euh, que chacun joue son rôle que la presse joue véritablement son rôle parce que même à travers nos télé tu verras des des porte-parole du jour alors que tu es un chroniqueur tu es dans l'analyse tu dois être tu dois être dans <laughs> l'analyse quoi structuré argumenté mm. mais parfois tu as l'impression que quand bu certains font du populisme pour nous, pour débat de et c'est une crise qu'on a traversée parce qu'on a trop politisé puis les plein fi politisé mm. ouais alors mais euh... toujours si je le y a jàpp ni brusque dinañ ko Ousmane Sonko euh, euh, joxe euh, parce que ñu ngi koy accusé nag dégg nañ démb si Nour fay mu jàpp ni Sonko moo joxe li nga xam ne que moo di ordre peut-être daal di bloqué quelques comptes mais mun nañ jàpp ni li nga xam ne moo di waa inspecteur et domaine ñooy liggéey si wàllu wu nu mel mais ñoom jàpp neen que ni da leen ko indi de manière brusque <laughs> maanaam da leen ko sëllax daal indi leen papier papier ñu ne danga koy fay. concrètement c'est euh, acte bi euh, lañ si à ak Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko limite à taxaw di préciser waat que ni euh, ate bor fay et que nit ñi dañoo war fay ñu jëlee ko ay xupp ay menaces d'autres d'autres et tant d'autres c'est kilifa. c'est bi. Hmm. ate bor fay. coow li à ate bor fay maintenant suñu leen dee fisc su fekkee d'accord nga dem jëli c'est expert fiscal mu évaluer cest à le vrai débat mooy Macky Sall da c'est ça le vrai débat Macky Sall moo dajale fi patron de presse Il ne leen defal amnistie fiscale c'est vrai c'est pas vrai. Okay, c'est vrai et dans un pays un état de droit amnistie fiscale l'Assemblée nationale moo def nationale mooy voté amnistie fiscale mais comme l'Assemblée nationale voté l'amnistie amnistie fiscale. Hmm. la loi n'est pas effacée. maintenant il faut ñu l'État. état bi tey ban intérêt la am ci tëj activité presse technique et entreprise c'est des emplois c'est de l'économie kon tey war nañu ci ban méthode de compensation c'est-à-dire à la place de nga fay nangam état bi day soxla ay publicité day de la communication ñu comment on s'organise pour que loolu mën a pour ne même Ndour Faye ce qu'elle a dit c'est son droit nous sommes au Sénégal mm quand le président Macky Sall a pris une décision, un décret pour une c'est des citoyens sénégalais qui sont allés au niveau de la, de la Cour suprême. Nous avons dit que l'État a fait un dogal, àttekat boo xam ne mooy àtte état bi ak ki nga moy le recours juridique fa ci am recours juridique bi annoncé exactement est-ce que fi du gën tendre li nga que les choses à la place ñu wara am médiation mais ah mais weeteen ci parce que commencement bi si on a euh, parfois il faut que gars yi ku nekk am lo lo wone après euh, autour d'une table on pourra régler ça pour man euh, toutes les parties ont des intérêts au Sénégal il faudra que peut-être que Ousmane Sonko ait hein, les épaules plus, plus, plus larges et que mu mu mun a xam ni euh, tey moom président mooy premier ministre du Sénégal chef de gouvernement et que mu neex ko mu naqare ko ñëpp lay njaboote. mais en quoi euh, profiter en quoi euh, museler li nga xam ne que moo cette presse war a mën am ay conséquences yu néfaste wala kon. sans conséquence qu'est-ce que qu'est-ce que. parce que ñoom muselé la ñuy wax euh, les patrons de. waaw les ñom ñu wax ko yow nga ne lool ñom lañu wax lool mais en quoi wala kon en quoi Ousmane Sonko ni nga xamni tam non son la taxawee fay vis-à-vis avec sa presse. est-ce que lool du entacher un peu liberté d'expression fii Sénégal concrètement. mais qu'est-ce que la liberté d'expression a avec les engagements. vis-à-vis d'un état. parce que nee dafa am ñu si ciblé. grand moi ma léegi yow seen kër. yow mosoo yow mosoo toog seen kër rek Sénégal ak ñëw di déjati compteur. est-ce que dañ leen ciblé woon. Hmm. dama lay laaj. da ngay jékki seen kër lëndëm koñ bi yëpp tàq. ne nga am wala faylo cest le vrai débat mooy il faut am cette culture fiscale. di fay toog ne nangam lañ la wax bu la neexee am nga droit nga ne lii ñu ma teg du yoon damay dem ma wut. Et ça, c'est tout le monde. parce que inspecteur impôt domaine de bi muy def y un expert fiscal Il xam dañu ñu alors c'est clair. donc pour moi, le vrai débat euh, museler ou pas euh, pour moi, personne ne peut museler la presse et je ne pense pas que nous avons un objectif de musellement de la presse. Mm. donc pour moi, on doit assainir l'assiette fiscale du Sénégal. Mm. toutes les poches toutes les potentialités de fiscalité on doit régler ça. alors c'est merci beaucoup cher Omar ça a été un plaisir di. Euh, tey li ma bëgg a laaj ba tey laaj boo ma ko laajoon man laaj ma lu la neex. <laughs> bil barke alxuraan man damaa yàqamte nga laaj ma man ma wax question yi question yi jeex na. ah question yi jeex la ñuy yem. Ah, ah. boo fa yemalee ma yemalee la ah, incha allah bàyyi nga daan tàggatoo ak man xam nga aw ma sujet tabou parce que pour man. c'est une question de conscience et de mm. liberté mm. parce que pour moi nit yow yaa jox sa bop liberté mm. bul bul nangu lu la bul nangu ku la wa parce que dañu toll fo xamni dañu wara war suñu defar euh yaay yaa ak maa jitu l'essentiel li ngay bo jiitoo bo mënee baxna su fekkee tamit djum nga ñu taxaw ne la djum nga donc pour man suñu suñu suñu rôle lañ nekk et puis waruñu xol ci ay intérêt particulier parce que diw sama mbokk la wala diw moma jege nañu jiital toujours intérêt réew mi parce que pour moi, nous avons cette culture fiscale. Mm. même si nous yi école ça war nañ TVA par exemple. Nous mm. lan euh, euh, l'impôt mm. sur le foncier bâti. Nous avons tax ngay fay douane. Sénégal ah, de li alors qu'ils sont les gardiens même de notre économie Nous faisons dañu produits produit bu au Sénégal te teguñu si ay taxes douanières ça veut dire les barrières douanières ça veut dire suñu économie dina daanu parce que bu vous faites par exemple une euh, na entreprise qui defar fii ay spaghetti qui hmm. dem importer spaghetti buñ ko xoolalee entreprise boobu dina tëj te bu tëjee ah, travailleur dina tëj te dina am lu impacté c'est clair kon tey hmm. ñu am cette culture même parfois nga wax waaw maire bi def parce que li ngay fay ci la ñuy tàllamp yi tali bi ngay jaar nii na ci ngay dem ci impôt yeeg taxes li leen koy jël di ko mm. budget Sénégal bi ngay dégg coole lu muy bëri bëri bëri yaakaar ko fenn lu dul ci ay impôt ak taxes. donc tey nag il faut ñu am cette culture. maintenant nag c' pas parce que vous êtes de la presse que euh, vous ne devrez pas vous acquitter de vos obligations. d'entreprise comme les autres entreprises maintenant sur le plan politique bu la neexee ñu tàllal ko. mais comme noonu nga ko

nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour moi, c'est le plus important. Mm. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve, euh, chers très très prochainement. C'est bien numéro de cette il y a le point de l'actu.